35 millions battle ak Ngaaka Blindé waaw loolu nag xam nga tey question boobu noonu peut-être xam nga xam nga xam nga lan moo gën a lan moo gën a neex gis nga tey maa ngi nii yaa ngi nii ñit yi soxla nañ ñu mais duñu ay dof <laughs> man tey su ma xamee ni man ak is bu ñu demee tey ñu battal dañ siy lekk xaalis su ma xaar ku koy tëgg su ma ko soxlaa ku nekk ak sa plan de carrière su ma ko soxlaa man sama bopp mun naa démarcher démarcher sponsor yi fay ko te du ko yëg encaisse sama xaalis dem sama yoon. <laughs> du affaire de ay kii tëgg na diw. 40 cent cinquante million loolu jar na lépp loolu. Uh-huh. suñu muusee rek jarul sax ñuy xaar diw di ko tëgg. mais problème bi mooy ku nekk ak ni ngay liggéeyee. est-ce que est-ce que que hip hop bi war na dem dem dem foofu. dem fan. dem ci woy ñuy teg ay battle teg. bon uh-huh. ku nekk ak ni à chaque fois. ku ak bien sûr am na ñoo dañ koy def. mais ku nekk ak ak sa ak sa xeetu liggéey ak ni ngay liggéeyee. man nag dama nekk nit boo xamante ni def yëpp dama koy gëm. day dëggu si man quoi. Uh-huh. man ak yow xëy kay gars gis ñuy wax gis ñuy am problème wala amuñu problème xam nga lan la importance pour wala dañ koy def pour public bi ne gars yi ñu ngi joobal hip hop bi wala dañ koy def te yàlla tax wala dañ koy def entre ñaari nit ak nit ñaari lu am solo nag laa lay wax mais ñit yi instant de waaye game bi dafa war a neex dugg na fii génn na fii am na lu ko jiitu quoi pour man wax dëgg yàlla léegi nag pour man xëy na du ma si mën a wax lu bëri quoi